mbas mi dafa lëmb rew mi ba askan yeb son nañu. ko xolé lu jëm ci walu transport interurbain bi xam nga ne ñoñu gaare gaare nañ bu yàgg kenn waxatu seeni wax euh, ñu bëgg gouvernement bi euh, wat ko auto yi man di dem ak dik mais ñu limité nombre bu ñu yeb moy ñu bañaté am Versailles euh, ba kër mbas mi jeex mais ñu bay leen ak seen nombre de plus, limité waxit tamit ci walu transport taxi urbain bi. parce que gis nañ ne depuis mbas mi commencé ak léegi euh, mat na ñetti weer yu manqué tuuti ay ñaari weer ak genn wàll lu tolloo ak junniy taxi ñi ngi ci àll bi génnoon dem seen kër njaboot yaakaar ne xaj na mbas mi du yàgg mu far képp leen fa euh, ñu waxan sunu ministère tutelle di ministère du transport mu liggéey ci ak ministère de l'intérieur pour que oto yooyu mën a dellusiwaat parce que ñi ngi ko sukkandiku ci waxu président de la publique mag Sall njiitu réew mi transport en yi nañu dellu ci seen bérébu liggéeyukaay ak baykat yi ñu gis démb rek ak bërki démb ne terminus Liberté 5 gis nañu enseignants yi ñu defal leen ay foor yu mag euh, jut leen ay jox leen ay biis ñu yóbbu leen ba ci régions yeeg département yi préfet yi di leen gàttandu di leen jàll ci gox-goxaat yi ñu dëkk nun ñu yor suñu oto yi bopp ah chauffeur yi taxi yi kale ci àll bi kenn mënu leen a delloo siwaat inter urbain bi kenn mënu leen a bàyyi ah mu mel ni nag euh, Sénégal dañ jàpp ne nun benn Sénégal ñu bëgg ministre du transport ak ministre de l'intérieur ñu sukkandiku ci waxu réew waxu njiitu réew mi parce que waxu njiitu réew du ay caaxaan président bu xasee wax jëfe la war a tudd ñu bëgg taxi yi ci àll bi ñu dellu siwaat nu mu gën a gaawee sans délai bëgg tamit inter urbain yi ñu bàyyi leen ñu dawal seen oto yi te respecter les mesures barrières bëgg tamit responsable yi nga xam ne wala directeur yi nga xam ne ay directeur transport lañ teñ teñ jege trop euh, ministre du transport ñuy mesure seen ay kàddu ndax la plupart bu ñu waxee rek seen kàddu yooyu dana indi jafe-jafe ñi nga xam ne ñooy dawal dawalkati oto yi